ayca kaay maa ngi lay nuyu di la ziar jàkkaarloo nañu ak caméra yi jàkkaarloo ak caméra yi nga nuyoo ba pare soog a jàkkaarloo sax waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax baat onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñi fi teew ñëpp di wax ne am na mbégte bu baax waaw gannaaw ba gannaaw ma sant yàlla sant Yeesu Kirist sant ñu fi teew Max di sant waa CNG bi yëpp mais di sant gars ma àndal nii muy Sowra ak El eh, di sant sama adversaire di nuyu sama waa dëkk waa Joal Fadiouth e fulo seere mbe simna nuun mine ko rolo ɓiy nuun mina xel a nuun mi siktam no combat fa lekan andoona yee mi fo maar layo ma fi ngidim ngoolu to soog no na peyo sikista yaalen non damaa kontaan ci moom parce que bu ma amul ak bu lu yombul du ma bëri kon contentement la waaw liggéey na liggéey na waaw waaw liggéey na waaw. waaw lu ma téye ci noonu ma téye waaw nettali si gémmiñu borom la dàqee loolu lu ñu waxaat mais dama ne maa ngi gërëm ñi nga xamante ne nii man maa tax ñu ñëw fi di ñaanal sama rakk Bartam yàlla suñu borom bi may ko ndam maa ngi ko koy ñaanal ci sama biir xol te yàlla na ko suñu borom defal. di sant ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ku ci mel ni Ibrahima Dioula oto ma indi ma di yëkkati xaalis bu di ma jox yaa kon kooku aw ma fayam Ibrahima yàlla yàlla suñu borom defal jàmm yàlla may la xéewal defal la sutura di sant Pagataas di sant sama rakk réparé Malick maa ngi koy bëggee bu baax a baax. xam nga di bëggee Pape Sall Dias borom Pikine maa ngi koy bëggee bu baax a baax non dafa am ñoo xamante nii faaw ma leen sant ndax dañuy jàpp sama bis comprendre nga waaw loolu noonu daf ñu war quoi oui. non non par rapport il faut ma sant ma non waaw ñoo xam wax dafa leer dama dama ne li ma liggéey ak suma ma toll si làmb dama nekk yaakaaru làmb dafa am ñoo xamante ne dañuy bàyyi xel bu baax li ma la wax dafa leer dama ne la ko réelu du ma téye. loolu wax xalaatam lay wax. lu moom laay wax lu nekk si moom laay wax. du ma tirise li may wax si man la ne sama gëm-gëm la mais nekkureelu du ma téye. waaw waaw lamb la bu ko neexee wala ko neex mais bu la vingt cinq bu arbitre nee prix bi. bu la vingt cinq ma daan ko. naa ko tamit suñu borom naa ko may temps ma xool lu muy naa ko may temps taxaw. déggoo ma bu taxaw bu taxawee ñëwul. ñaa ko attaqué ñaa ko soxla ñaa ko daal loolu du wax parce man du ma mbër bu ñuy may temps moom du xaar man du ma xaar comprendre nga. arbitre bu sifflé dañuy daje man ak moom ñu bëri yaa ngi dégg bu baax fi ñu gars yi di xaaree mooy pour ñu ñëw taxaw jaaxaarloo waaw yàlla baax na bañ àgg. waaw loolu moom yàlla danañ wax la nekkul da ngay lii loolu mosu ko mosu ko gis fenn. waaw mais tamit xam nga bu arbitre nee prix bu arbitre nee prix dama koy song dama koy koy daal. lépp lu war si làmb ji man maa koy def dama koy duma dama koy daan si kàttanu suñu borom. déggoo li ma la wax man bëri kase du songu kase du bëri mais dama ne la Papa Kane dafa am lu mu doon wax mu ne la ki nga xamante ne mooy uti mooy ëpp 1000 pour am kii xaar. kii tax kii amul amul fitu taxaw dama xaar pour mooy dugg ci ay tànkam. ñun école ñun école ñun école lañ yor école ñu yoru ñu école lañ de la école lañ yor Papa Kane ku ko xam xam ne la def lu ne si làmb mais dama ne la sama diggante ak moom li ko nit ñi di xaaree mooy ndam sama côté te dama koy am. lamb ñu ne lamb ay ay experts xeex si bëre. ay experts ñoo nekk si ginnaaw kii wax dina ñëw. ñun ay experts ñoo nekk si ah, bu nekk si ginnaaw booy Thiam. amit bu nekk du attaqué. la ñuy laa la wax amit bu nekk du attaqué. dëgg ma wala moom ma warul ma sànnee ma daal. kii man man du mbër bu ñuy humilier si biir géew. non man yaa man dama la humilier man dama mbër bi humilier man dama dama nga ne ma ko ma man ko ma daan dama lay fàtte nga ne bu arbitre bi sifflé bu ma la sifflé bu ma fàtte ma dóor nga daal ma ne la man duma mbër bu ñuy humilier waaw ah, kon baax na xoolaatal li ngay wax waaw ah, kon baax na man duma saar boobu de en tout cas daal li war si pis bi dee ko ma de le 25 le 25 maa ko moom le 25 maa ko moom da ngay xaar rek waaw ah, baax na te sëñ Bamba da ngay xaar mu leer laa lay wax waaw lamb ji su ma ko teg tegoo ko fa fi lu ma bëggee lamb ji bëggee woo ko fa coono yi ma ci daj dajoo ko si. billaahi wallaahi wallaahi say supporter yow say supporter da léegi mbir coono yi ma si teg xam nañ ne xawaatuñ si yow mooy la muy dal ma xawaatuñ ko sax yàlla suñu borom bi xam na ne daju ko si oh. billaahi wallaahi wa taala salawaat ngay wax rek mais supporter bu arbitre bi sifflé ma war ko ku ko mën nan la koy defee déggoo ma de waaw ah, baax na non non non mais bàyyi boobu maa ngi gërëm bàyyi ma gërëm boppam waaw ah, mais damay woote damay woote damay woote mbay si mbay boo paree boo paree boo paree boo paree nga ñëw si combat bi. Papis Galala. Boy Reyni. Amisila. mbër yëpp wàcc nañ mbër yi. Amisila groupam. Pape Yekini. Moussa Moussa Sène. sama waa koñ sama fan sa club yëpp. waaw loolu gërëm di ci mel ni gërëm ñoom Baara Gueye. di gërëm gërëm di gërëm promoteur bi ah. ñoom Fatou ñoom Alain ñoom Diagne ñoom Ndiaye ñoom ñu maa leen di gërëm di combat bi. di gërëm sponsor bi waaw sponsor bi. waa Rente DKR nag di wax ne li ñu tëgg neex na. ñu ngi très surpris di mel ne Alain Jumbo Pape Sarr. waa ci leen di siyaare di leen gërëm. wii di wax ne yàlla bisu réussir incha allah rabbi. eh bal bi kay kurisaan kurisaan sa open press kan nga yow sur lendemain tabax si yow sa open press waaw sa open press yëgale ci kanam incha allah atelier sangoon la koy defee mu ñëw ndaa ko përëm waaye tooy ana ana ana Bara Sarr Jumbo aywa loo ci yokk salaamaaleykum di nuyu mbooloo bi fi teew di kontaan lool ci seen teewaay vraiment euh, ki may njëkk gërëm mooy les forces de l'ordre la sécurité di remercier commandant Thioune de manière vraiment bu bu àpp bu xam ne amul àpp amul fu mu yem parce que tey lii bu nee nekk c'est parce que sécurité bi dafa mët dafa doy li xamal gars yi nag ci làmb ji encore sécurité bu raw sécurité bii moo fi am zéro tolérance parce que làmb dafa tilim dafa salte foog ñu sang ko te ñi koy sang mooy force de l'ordre bi donc mention spéciale à ñoom parce que ñoo tax lii am buñ fi nekk doon lii tey du sotti di gërëm manager yi fi teew di gërëm mbër yëpp di gërëm mbër yëpp di sant mbër yëpp di gërëm Pape Sarr di gërëm Alain di gërëm kullu manager bu liggéey ak ñun di remercier site fi teew yëpp ay seen jigéen tamit ñëw dooleel ñu accompagner ñu parce que làmb metti na làmb bëriwul jàppale lii mooy jàppale làmb ñun du fi yemoon sax neex na xëccoowuñu xuloowuñu histoire ñu mais sant nañu yàlla ba woote ñu wuyu si la yàlla defal ñu ñu bokk si ñu ko am. am na lu ma dégg ngeen wax seen prochaine journée ñoom ngeen di tëgg. dañ maa foqati mais maa ngi doon waxaale benn combat boo xam ne taxaw na léegi ci biir stade bi maa ngi doon waxaale combat léegi bu taxaw ci biir stade bi du ma ko wax làmb daa bëri sàcc. non sàcc dañoo bëri léegi léegi am na ñaari mbër yoo xam ne léegi ñu génnaale avance si kattanu yàlla incha allahu rabbi